حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمطار macha allah mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission bi di Kaddu Daara ci seen site bi Rafah TV ba tey ñu ngi fii ci Bayti Seck ba tey ci école bi nga xam ne moom la ñuy wax Cheikh Mouhamadou Badiane macha allah ñu fii ba tey di xool liggéey bi xam ne gone yi nga xam ne ñoo jógee ci xam ne ñoo aju seen wàllu diine rawatina ci ñaari làkk yi nga xam ne mooy làkk français ak làkk yi nga xam ne moom la ñuy wax luxatul arabi macha allah sëñ bi ñoo ngi lay nuyu tur bi naka la Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen bu baax. macha allah dalal di leen wax axlan wa saxlan wa marxaban bikum comme ni ko sama mbokk oustaz bi di waxee. macha allah donc vous êtes euh, les bienvenus. macha allah donc vous une bienvenue. Mhm. fii ci école Mouhamadou Badiane Seck. man nag maa ngi tudd monsieur Leye ñu may wax maam Biram Leye. waaw monsieur monsieur. monsieur Leye Leye monsieur Leye. il s' appelle monsieur Leye. waaw monsieur Leye comment vas-tu. waaw alhamdulilah je vais. alhamdulilah allah. <laughs> tu es en direct dans la émission. Euh, kàddu daara macha allah. waaw macha allah comme ni nga ko waxee rek. Mhm. Euh, kàddu daara moom. macha allah dañu nekk ci école. Mhm. waaye daara daara bi moo ñu ah, moo ñu moo ñu englobe. tabaarakallah tabaarakallah daara bi ci ci lañ jógee. Mhm. ndax lépp ci daara ji la. macha allah wallaahi daara bi moo màgg. bañ am xalaat. ba jur école bi. tabarakallah mën nañoo mën nañoo mën ndoll ci daara ji macha allah alhamdulilah dinañ sa war a wax ko alhamdulilah kon mbokki li ci ñoom bañ mokkal alxuraanu karim ak ñi nga ba daara ne comme ñoom kat mokkal alxuraan bu ñu ko dee def tamit xaw ñu tàmbali leen jàng français fii la ñuy jàngee bi nga ne moo nekk nii incha allah mbusee ginnaaw bi gone gi ñëwee dugg ci école bi yéen bu ñëwee ban programme ngeen tàmbalee moom waaw alhamdulilah dinaa sa a tontu ci question macha allah euh, ñuy jël xale bi di ko initier. Mm-hmm. day fekk ne moom mokkal na alxuraan. tabarakallah nga xam ne kon dafa am processus bu muy jaar bu muy jaar ba noppi kon xale bi day mokkal alxuraan wala mu wàcc mu wàcc bu ko defee mhm. euh, avant muy ñëw fi sax dafa am lu ñu naan mhm. euh, ñëw di fi for ak dara mhm. euh, di ci am benn des cours d'initiative yoo xamante moom la moom lay moom lay jël bu ko defee ñu mën ko ci tàggat ndànk-ndànk tabarakallah muy mathématique ak ak lecture lecture mais xale bi nag ci daara ji lay jugee ci daara waaw mais nag commencé nañ di jël mooy des externats ñi nga xamante ni feneen la ñuy jugee allah ñu nga xam ne dañu euh, euh, féete fii di allah liggéey bi yéen programme ngeen ko xaaj ñaata programme ñaata xaaj ngeen ko xaaj nga xam ne xale bi ak fan la nga xam ne école bi fa lay yemale xale bi doo koo mën a jàllale feneen. waaw foofu école bi. Mhm. Euh, ñun traditionnel bi day def six ans. six ans ñun mhm. au lieu de six ans dañuy def trois ans. Mhm. donc formation accélérée la. macha allah nga xamante ni nous sommes obligés ñu jàng onze mois au lieu de neuf mois. nga xam ne dañuy obligé sur la même année. dañuy def classe de CICP.

2018 am 100 allah euh, alhamdulilah. alhamdulilah mu liggéey am solo. yow mi nga xam ne gone yi masalan sëñ daara dañuy jël gone. sonn ci moom ba mokk alxuraan tam ñu jox la ko. Mhm. yow est bu ñu la joxee yow da nga ci fekk liggéeyaat bu jafe boo xam ne da ko sonn wala gone yooyu est neex na ñoo jàngal li làkk waaw xam nga alxuraan moo nekk mbir moo xam ne. Mhm. maa ngi ciy soññi. macha allah donte ñun ñàngum nu ñu koy waxee ñàngum càmmoñ lañ koy xamu. ñàngum moom nga jàng ndeysaan tabaarkalla waaye alxuraan man personnellement. Mhm. ñaan naa saa borom. Hmm. doom bu moo am mu njëkk alxuraan. macha kon mbir la moo xamante ni day ubbi macha hmm, hmm. xelu doomu aadama bi. te ma war a am te te yëpp julli sax ma war a jiitu ci dënnam. parce que parce que parce que ñun liñ ci am. ñun ah. xam nañ ko bu baax. tabaarakallah xale bi nga xam ne ni mokkal na alxuraan. bu ñëwee. moo ñuy may ñu mën def formation accélérée. macha au lieu de six ans ñu def ko trois trois ans. parce que xale bi. lam def ca mbaar ma. xel mi commencé naa commencé naa màgg. macha allah ubbeeku mm-hmm, a jël lu bari bi nga xamante ni mm-hmm. tàmm na ko. Mm-hmm. kon bu ñëwee fii wax dëgg yàlla loo ko jox dina ko mën a attan. macha allah nga xam ne moom xale yi daal moom lu ñu waroon a jàng juróom-benn at yéen juróomi ñett at ngeen leen koy jàngal. jàngale ko allah aussi tamit euh, maa fàttali foofu suñu point fort. parce que ñun mooy les crépuscules muy timis bi dañ koy jàngale. nga xam ne ñun xale bi dañ day nekk ci au tout chaque instant day nekk ci ñun. macha allah nga xam ne daanaka marax sax xale dañ koy jàng français dañ koy jàng français. donc mhm. benn euh, une boo xamante ni dañ koy jàng. Mhm. bu ñu jullee maanaam gée ba pare. waaw euh, xam naa oustaz dina ci ñëw incha allah dina am ay cours yoo xamante ne daal xale bi ñun à chaque instant hmm. dañ dañ koy may bët daal macha allah da ngeen ko may bët fu mu toll loolu loolu lan moo leen dañu yàgg xale yi macha allah boo xam ne bu fi hmm. hmm. ak ñun ñu koy gis xam nga mu ba ba am ay 11 ans ak nangam macha allah daanaka euh, xam naa sax entre parenthèse laa ubbi foofu wax ne tey ren am nañ suñu collège xam ne léegi xale bi bu euh, ba am euh, certificat cas wala mhm. en transième mhm. dañu am possibilité mhm. pour euh, maanaam mu continuer mu continuer fa nga xam ne tàmbali na waaw actuellement ñu ngi ñu ngi sixième cinquième macha allah foofu tamit euh, maa ngi fiy ñëwaat au lieu ñuy def sixième dañuy def sixième cinquième

man avant ma ñëw fii j'ai été à Touba. Mhm. avant sax Touba j'ai été à Mbour. Mhm. parce que Mbour laa nekkoon di ci ci école yi foofu. Mhm. yàlla def ma ñëw Touba. mais bu ma ñëw fii gis naa fi benn euh, benn benn programme boo xamante ni. macha allah ma quoi. ma ñëw adhéré wu ci nekk nit ñoo xam ne dama ñëw fekk leen fii. donc ñu tette ma won ma yoon tabaarakallah ah, di nuyu parenthèse euh, sama jëwriñ. macha allah Amadou Fall Ndiaye tabaarakallah ñu gëm tubaab mu yaatal ma lool wax dëgg yàlla. <laughs> maa ngi moom ñu liggéey liggéey bu am solo. macha allah donc ba yàlla def ñu ñu am ay résultats yoo xamante ni vraiment. Mhm. Euh, ñëpp ñëpp ñëpp teg nañ seen bët. xale feuille vierge la. wallaahi wér na loo ci loo ci inculqué rek. moom moom mooy moo ci nekk. xale daal këyit weex la boo xam dara rek. boo ci bindee bi bu ñuul moo ciy nekk. boo ci xonq rëddee rouge loo ci bind moo ciy nekk. noonu la demee nag noonu la demee macha allah. waaw wax na te aussi maa ngi lancé benn appel. ci mhm. nga xamante ni ñu ngi wax ci affaire affaire njàng. parce que njàng dafa nekk lu sensible. Mhm. waaw. xam nga l'enseignement ça ne pas. Mhm. ça se planifie. da koy waajal. Mhm. nekkul mbir moo wax ko ci wolof mu gën a leer. nekkul loo xam ne ñëw rek di ko improviser. Mhm. waaw mais dafa nekk loo xam ne da ko war a càmbar jàngat ko bu baax. baax baax macha allah par exemple cours bi nga war a def suba. da ko war a fanaanoo. mooy jàngalekat bi daal balaa jàngale dara da ko war a nafar bu baax baax. ba xam ko yokkaat xam-xamoo. parce que dañ naan les écritures

encadreurs yoo xamante ni. à mhm. chaque instant de façon pédagogique ñu a mën a lépp lu xale yi soxla rek. Mhm. lépp lu soxla ci école bi rek. Mhm. Euh, di nuyu Fallou Seck mi nga xam moom la ci léegi macha allah yàlla moom allah jërëjëf macha allah lépp lu ñu soxla rek. allah rek moom da ciy xaar sa tànk allah jërëjëf monsieur am na solo lool macha allah xam naa man français ba ma jaaxal ndax <laughs> am bari na baat yi may wax waaye man xaw ma mënu ma koo mënu ma koo wax waaye rek tabarakallah liggéey am na solo lool macha allah ñu ñëw ak oustaz oustaz salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. macha allah qanaati DMS TV. macha allah aw Rafah TV. Rafah TV macha allah. marhabakum huna fi madrasatina almaaruf bi. Cheikh Mouhamed Badiane Nakh macha allah. fii Bayti Seck. macha allah. alwaqi fi muqatamati Tiwaawoon. Tiwaawoon macha allah barakallahu fiik. macha allah oustaz Mass Mouka. ismi Serigne Madiaye Diop. Serigne Madiaye Diop. waaw Serigne Madiaye macha allah ñoo ngi lay nuyu ci seen seen bi di Rafah TV macha allah seen émission bi di kaddu daara mu nekk yow nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ñaar yéen a seq seq ginnaaw bi gone gi mokk alxuraan ci yéen ñaar lay jaar. kii di jàngal français yow nga koy jàngal loxatul arabiya jàng jàngal ma arab yi ginnaaw bi gone gi ñëwee ci ñaata xaaj ngeen koy xaaj ak gone gi fan la am njàngam di yam. alhamdulilah tabaarakallah ci laaj boobu. Mhm. mbokk daara. macha ginnaaw bu leen dalalee ci mhm. am ak rafetlu teewaay bi macha allah Euh, ñu ngi ci gën a am contentement. ci suñu bopp ma xam ne nii wallaahi Amadou Fadal. Mouhamadou Fadal Ndiaye macha allah. ci bari moom war na cee mën a am xibra ci tontu woon. Mhm, tabaarakallah kon ñu ngi am contentement bu baax baax ci laaj boobu. Mhm. Euh, mu di rek daanaka day répété waat rek. Mhm. Euh, xam nañ ne xale bi bu jógee ca daara ja ba ñëw fii. alhamdulilah dan àndanteeg moom ci tette ko. ci tette ko macha allah ci gàttandu ko. ci dalal ko ci xam-xam boo xamee ne nii. daa bokk ci xam-xam yi nga xam ne nii. Mhm. mooy koy gën a jàppale ci dund gi nga xam ne ci lay. ci lay tàbbi macha allah ci adduna ndax adduna moom nit ki mënta jàng. wala mhm. mënta dund te dundul diine. Mhm. waaye ginnaaw diine bu jiitoot mm-hmm. ngir jàppandal dunduk àdduna mënta ñàkk jëfandikoo meneen njàng mi ah, ba tax na loolu tamit ñu ngi ko tënk ci ñetti étape mm-hmm. ñetti étape yoo xamee ne mm-hmm. euh, muy classe al mutawasit al awal wa mutawasit saani macha allah fi fi sanatin waxida ah, macha allah wa kazalika al ibtida al awal wa ibtida saani fi sanatin waxida wa kazalika al mutawasit al awal wa mutawasit saani aydan fi sanatin waxida Euh, kon daal xale bi moom ci diiran bi mu fi def ci marxala ibtidaaiya bi mhm. moom ci ñetti at la koy def ci ñetti at la koy def nga xam ñetti at lay am daal di am marxala ibtidaaiya daal am certificat macha allah certificat nga comme na nga ko amee woon ci français noonu la koy amee waat ci ci loxatul arabiya macha allah barakallah fi yéen yéen ngay am pour gone gi jàng bis yëpp la xale bi jàng wala dafa am bis yoo xam ne rek ci lay jàng waaw xale bi nag fii ci heure yi muy jàng moom mhm. euh, dana tàmbalee ci gaaw ba alarba euh, alarba kon bisim doon jàng alxuraan daal bis yëpp da koy jëlaat di ko jàng waaw da koy jàng ci ci wàllu arabi école bi macha allah luxatul arabi bi macha allah xam ne bu xëyee samedi mhm. ci mhm. a a ah, day jàng ñaari làkk yëpp ñaari làkk yëpp maanaam bu duggee ban ban ban matière mhm. ah, mu jël alxuraan bu xëyee teg ci euh, fiq wala xadis mhm. macha allah wala lu demee ni ki euh, siira mhm. wala lu demee ni ki euh, tawxid ma macha allah ci kam ni nga xam ne noonu lañ koy jëlee par étape ci jour bu nekk kem tolluwaayam rek fi toll rek mhm. macha allah waaye samedi bu ne daal daal dana am matière boo xam ne daal ci wàllu diinam la jëm daal macha allah ngo suba ngoon dañuy jàng wala suba gi dong ñoom nag njàng mi bu dee ci école bi dana tàmbalee comme huit heures ba on une heures treize heures et demi maanaam une ba treize foofa benn temps rek leen fee am noppalu muy 30 minutes. 30 minutes entre 11h 11h et demi. 11h 11h waaye su jógee fii nag ba dem ca kër ga. Mhm. dafay amaat beneen étape boo xam ne ci lay dugg. mooy leen foofu muy muy dirasa majalis. majalis macha allah te loolu yéen yéen a ko yoraat tamit. ñoo ko yor waaw macha allah nga xam ne gone yi léegi da nga leen jàngal. ci mhm. maja jàngal français arabe ba pare tegal leen programme majalis. waaw ah, dañuy jël programme boo xam ne day dëppoo ak programme mhm. euh, gouvernement bi. ci kenn kenn ni jàngalee franco arabe. noonu ngeen koy dëgg. waaw ci école bi. nga xam ne gone gi bu paree man nga xam ne

macha allah ak yeneen mawaade yi nga xam ne na mën naa nekk ay lo ay mawaade luxawiya macha allah ci kem étape par étape kenn ci nekk rek étape bi nga toll ak téere yi nga xam moom lañ lay moom lañ maamagati macha allah tabaarakallah macha allah guddi gét mhm. euh, bu ñu demee ba nga xam reer nañ ba noppi. ba julli hmm. gee. Hmm. danañ am ñoom une heure de ñu dellu résumé nafaraat mboolem li nga xam ni moom lañ doon jàng ci école bi. ci bis bi ci bis bi wala waaw bis bi set uh, xale bi ki duru si am. bu hmm. ngoonee dana muraajawaat lépp. si kanamu jàngalekat bi. li mu war a tari da koy tari mu mokk. macha allah a dégg kon daal yéen daal moom yéen a defar jullit boo xam ne daal moom nañ am ci Sénégal moom fii cinquante ans trente ans ci kanam daal danañ am réew mi gën daal macha allah ci ay ndaw ñoo xam ne ñu kii lañ macha allah macha allah ah waay mbokk yi yéen xam naa man de

yàlla ñun bu ñëwee ci liggéey bi alxuraan moom wax dëgg yàlla dañ koy jàppee comme toog suñu daara jëli téye la wax dëgg yàlla ndax lii wanee lu baax moom jëf lu baax ñoo yem macha allah jërëjëf macha allah si Mortada kon ñu ànd incha allah ci biir daal dem incha allah ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار له علي waaw sëñ Modou ba tey daa mel ne ñu ngi ci biir daara ji sëñ Modou fii ñu nekk mooy fan nii waaw fii de Poulaye la boo xamee ne kër la goo xam ne ci biir daara ji la bokk mhm. nga xam ne borom bi eh, borom daara ji bi mu fi tabax daara ji la ko fi tabaxaale. Mhm. pour faggu fi ñu fi yare. Mhm. gis naa fi ay ginaar ak koppi nag ay bëy ak xar ak yëpp yëpp yii moom dañ koy yar pour lan daara ji koy yar ngir di commerce wala yaxantu ngir lan. déedéet ji yaru ko ngir commerce. xam nga mhm. borom daara ji. day wax ne dong yi waruñu gëj a lekk ndawal. waruñoo buun. ndeysaan loolu lay faral di wax léegi nag. ba. da ko daan fàggoo Touba di ko teg ci oto muy ñëw. wala mu koy toggee foofu di ko teg ci oto mu dem ba gis na loolu daal. Mhm. Ah, nekk na loo xam ne daal man di continuer. ci la mujj nag wut fii ñu fi yare ngir lii ñuy jëfandikoo. man mhm. di ko amee ci biir. macha allah waaye amu ci lenn loo xamee ne rek. programme daara ji daal njàng moom ni nekkee. programme noonu la lekkum ndaw li nekkee programme. waaw noonu la nekkee programme waaw. moom damay ragal yàlla bu looyee nii ñëw ak ture ture si si hmm. ñi nga xam ne li ñu bañ tàng lépp yaakaar naa bu la tudd ak ndaw boobu laaga léegi tey jii ñëf macha allah. Hmm. kii kan moo liggéey boobu kan moo ko yor. ah liggéey boobu nag dañoo wutub sàmm boo xamee ne. Hmm. moo yor wàllu googu nga xam ne loolu rek kay liggéeyam. nga xam ne moom lii moom liggéey moom. waaw moom xëy nekk ci jur gi rek. ba xam ngeen ne ba macha allah moom moog sëñ daara yi daanaka ñoo yem rek moom ndax moom yow yaay fexe ba sëñ daara yi lugg seen biir nga doon sëñ bi noo tudd man Alaaji Faye laa tudd. Alaaji Faye Alaaji Faye foo dëkk. man xel koom laa dëkk. xel koom Alaaji Faye la moo nekk sa liggéey ci daara ji. man de maa yore wàllu béy yi. Mhm. ak ganaar yi. Mhm, yaa yore wàllu gétt gi daal. waaw maa xam ne béy yeeg ginaar yi yëpp yaa leen def. waaw sàmm bi moom boo xëyee suba béy nooy def moom da ngay ànd ak ñoom wala da leen xont nooy def. non damay xëy sàmm yi ba bu ma ñëwee. waaw ah. togg leen bay ñu daal lu bokk atarière ma hmm. dem gontu ji. nga xam ne chaque jour daal yow ni sëñ jaaree gonteeg xëy gont da ngay xëy gont ci jur gi. da ngay xëy suba yóbbu leen bam naaj nga àndaat ak ñoom ñëw. bu ngoonee nga delluwaat. waaw allah. waaw moom yaa leen saytu ci wàllu lépp daal moom. waaw lépp daal maa ko yor. Hmm, macha allah loo xam ne dañ koo war a jënd indi yi def ci it. yow yaay dem jëndi waaw ñoom ñoom ñooy jëndi waaye man maa leen ay wax ñu jëndi indi jox ma. waaw man ñun bëy yi ñu gis nii daa mel ne bokkut ak bëy orne bëy toog bokkut ak daa mel ne ay élevage la fi élevage yi moom dañ koy jox donga yi. waaw waaw yi. Ah, bëy yi daanaka dongo yi. te ak ni mën a cher. Ah, waaw ah waay macha allah jërëjëf sëñ Alaaji Fay jërëjëf ah, sëñ Sëriñ Seck yàlla na ko sama borom fay gis ngeen ni lépp wax dëgg yàlla mu def ko ngir alxuraanu karim yàlla na la alxuraan fay yàlla na la alxuraan fay taxawal macha allah suñu Modou kon ñu jàllale fenn jërëjëf sëñ Alaaji jërëjëf macha allah jërëjëf Faye jërëjëf ilahi daynu sanan mustahsanin kulla aamin yawma yuxtaaru wa huwa najibu alladi fi wasfi xilqatihi wa xulqihi qiila tasjaaun wa ashcaaru walam yaji min dawil iflaaq wal bulaaga waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi ñu ngi lay bu baax. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di baax alhamdulilah. ngi seen seen bi di Rafah TV seen émission bi ñu wax kàddu daara tur bi naka la. maam euh, Cheikh Ibrahima Fall laa tudd. maam Cheikh Ibrahima Fall. la moo nekk sa liggéey ci daara ji nga xam ne mën nañu wax daara Cheikh Mouhamed Badiane. waaw xam naa sunu liggéey jamono yi ñu toll nii. ñu mhm. ngi ci assistance sociale. moom taxawu gone daal ci lañ nekk fi mu toll nii. macha allah taxaw xale yi. waaw taxaw naa leen bu jàngalekat yi noppee daal yow yaa ciy des yàq xale yi. waaw bu jàngalekat noppee daal maanaam màkk ñu wax si Ousmane Fall. bi. ñoo fi nekk ma ak moom. macha allah man nag dama doon jàngale ci école bi waaye ginnaaw daal ñu gis ni daara ji xaw naa am na mu toll. te xëy na euh, ñàkk fee féete daanaka euh, du mën a ñàkk. Mhm. fekk fee féete du mën a ñàkk daal ci lañ ma ni kon léegi nan na nan la. jàngale woon jàngalekat nga woon laata ngay ñëw fii. waaw waaw bi may ñëw fii damaa boole woon jàngale. Ah, ak ak ak ak di saytu xale yi. saytu xale yi ginnaaw bi nga bàyyi bi waaw ginnaaw bi ne liggéey bi xaw a bari ci daara ci xaw a diis. Mhm. ñu gis ni daal xëy na xaw na maa màcc ci wàll woowu. nga mhm. féet la ma ci daara ji. macha allah léegi ma fas bàyyi njàng féet ci daara xale yi waaw. gone yi moom wàllu saytu moom nu nu mel ak moom yaay tëj bunt yeeg yooyu wala yaa leen soñ ñuy tëddee heure beeg yëpp rawatina tëdduwaay yooyu. wàllu saytu bi moom <clears throat> dafa am benn kii bu benn organisation interne bu fi am ndax bu dee wàllu porte bi moom am na ku ko yor ku ñuy wax Massamba Thiam mooy gardien bi bu dee wàllu euh, seetal seen dëkkuwaay yi seen néeg ak seen toilettes yi na ku ñuy wax euh, Mouhamed Diallo waaw moo ko yor léegi nag euh, man maag si Ousmane Fall daanaka ñoo ne ci xale yi léegi moom nag lañ dénk wàllu surveillance générale bi mm-hmm. ak xëy na wàllu communication bi ci yéen yi ñu soxla ci daara ji. man nag daanaka bu xale yi génnee ci mbaar mi lu ci bëri damay taxaw ak ñoom. ci seen nekkin ci ëtt bi. bu ñuy añ bu ñuy njëkk bu ñuy reer. daanaka daal moom fii ak tëdduñ daal. daanaka man dama am kii daal euh, suñ suñ suñ liggéey jàmm ak daal. waaw suñ liggéey jàmm waaw waaw. jamono ji nga xam ne bala ñoo tàmbali wala ñuy teg boole ñu tàmbali da ngay yëg nga xale bu ñëw da ngay am na ku ñëw ñu doog añ waaw ñaare euh, euh, bala ñoo tàmbali añ bi dañuy fexe ba bool yëpp mat ñaare su suñu fexe ba bool yëpp ñëw euh, dañuy daal di sone sone yi moom daanaka ñëpp foo daanaka foo tool di ko dégg ci biir daara ji parce léegi sa benn mais dañ ko def ñaari sone yi mhm. léegi ñoom waxtu wuñ ko bësee rek xam nañ lu xew waaw bu dee waxtu jàng la xam xam nañ jàng jodde bu dee waxtu julli tamit xam nañ julli moo jot. <laughs> nga xam ne sonné waaw waaw boo waaw waaw heure bi moom boo bu jot na moom boo sonné. Hmm. te teewul tamit di nga taaxeerlu. ndax am na ñoo xam ne xëy na dañoo ne ci yoo xam ne xëy na mënoo jot rek bàyyi ko. di nga taaxeerlu ab diir. Hmm. Ah, ah, bu nu gisee ne daal xëy na yaakaar nga ñëpp ñëw nañ. Ah, nga laaj bool yi ndax amul ko manqué. Hmm. parce que ñoom ñi nga xam te ñoo bokk bool. waaw waaw daanaka xamante ne. dañ ko a xam ñoom xamante na mhm. su ko defee léegi kenn xoolee dana xam ne am na ko manqué. léegi mu léegi mu tamit kooku dafa am ngant bu mënta ñëw tamit lu mel ni xaw a tawat. Mhm. dañ koy tibbal. ko ko. waaw noonu daal xale yi. macha allah jërëjëf macha allah si maam Cheikh Ibrahima bu ci wàllu tëdduwaay moom naka lay naka lay demee xale yi tëdduwaay yi dañoo gis ne maanaam gis naa la lal yi bari lool macha allah lal bu ne ñaata xale ñu fay bo ñoo koy bokk waaw tëdd bi nag euh, euh, dañ daan def maanaam lal bu ne. Euh, benn xale daan tëdd. waaw mais léegi nag comme xëy na ren. recrutement bi dafa xaw a xaw ma maam xaw a diis tuuti. ba fi mu toll nii sax ñu ngi ci préparation ci daanaka xale yu bees yi. Mm-hmm. boo xoolee ne waaw bi ngeen liggéey ci kaw lalu bees yooyu mm-hmm. am na ci yoo xam daanaka fii fii lañ ko defaree. Mm-hmm. mooy xale yu bees yi nga xam te ne daanaka ñoo ñëw ren. te xëy na amaguñu fu ñu tëdd. moo tax mais tamit euh, ñi ngi ci ñoom. ndax lal yi noppi na ba daanaka mal ma mat laay euh, ma mi ngi ñëw waaw. waaw mi ngi ñëw waaw. waaw fi mu toll daal maanaam bu dee mag ñi moom. Euh, kenn ku ne salal nga yor mais xale yi fi mu toll dañuy xool ñaari xale yi gën a tuuti daal waaw waaw waaw waaw euh, suufee ñu mën leen a boole ñu mën leen a boole daal fi mu toll daal ci lañ nekk si toll nii daal wax ne ay moom da nga ciy am farlu ba nga xam ne gone gu ne bu ki bu ko tëkkul sax mënees na koo pine wala moom <laughs> waaw bu dee wàllu sànq yi moom daanaka mën nañu wax ni 24 euh, heures sur 24 daanaka dañ koy takk sept jours ci sept dañ koy euh, dañ koy takk kan même bu dul sax yooyu maanaam wàllu weñ yeeg yooyu yëpp daanaka moom day tax daanaka ñu jéem a góorgóorlu waaw ñu koy takk waaw. am daal moom mooy liggéey ak ñoom waaw. macha allah waaw baax na jërëjëf baax na jërëjëf. baax na jërëjëf baax na jërëjëf. jërëjëf suñu maam Cheikh ñoo ngi fii ba tey ci daara yi Cheikh Mouhamadul Badiane fii ci Beyti Seck macha allah. ma àndoon ak si Mourtada tey si caméra bi ñu ñëw fii macha allah gis nga liggéey bi rafet na loolu wax dëgg yàlla si Mourtada dañu maat fee ci franco bi rek incha allah xool boo xam incha allah lu fa xew bu soobee yàlla bi saj'i wa shi'ri mimma haaza mi'shaaru ahlul fasahati turran bi thanaa madahu macha allah ba tey sëñ Mouhamed ñoo ngi ci daara ji ba tey fii ñu nekk macha allah moom tamit nga xam ne toll na daara moom tamit fii mooy fan waaw ah, fii de kër la ci daara ji rek mooy goo xam ne dañ ko fay yokk. Mm-hmm. Ah, nga gis bâtiment bii ngay gis mooy ay dëkkuwaay la yoo xam ne jàngalekat yi ñoo fi dëkk. macha mbaar mi ngay jàkkaar lool tamit mbaar la moo xamee. Mm-hmm. dañ ko fee fàggu ngir mm-hmm. xew-xew yi fii am. Ah, yi fi faral di am ay conférence yu mel na ñu man di ko fi defee wala ay wala ay wala ay réunion yooyu moo tax ñu fàgg ko fi waaye tamit dañ fiy jàngale Quran tamit macha oh, allah ci waxtu jàng bâtiment bii daal moom jàngalekat yi ñoo tax ñu def ko. waaw ja waaw yi moo tax ñu def ko fi moom. waaw jàngalekat yi nekkuwaay yi fii moom dañu leen boole néeg wala kenn ku ne néegam waaw nekkuwaay yi nag boo xoolee euh, kenn ku ne néegam la fii na nii. waaw waaye nag euh, buñ demee ba mu laaj tamit ñu bokk nekk tamit dañ koy bokk rek ndax euh, fii jamono yi daal kenn ku ne néegam la nekk goon waaw. daa am na ñoo xam ne tey jii daal moom mën nañ fee nekk ak seen njaboot sax wutul moom di jàngale. bari na fi sax am na fi ñoo xam ne ñoo ngi fi seen i njaboot. ñoo ngi fi seen soxna waaw ak seen i soxna waaw. macha allah macha allah alhamdulilah. Mm-hmm. ñu dugg ci biir xool ba ba nekkuwaay nu mu nekkee incha allah. Kaabun wa Xasaan wal Buusayri qad bara'u wa kulluhum shi'ruhu nuurun wa asraaru fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru falaa taqiisu ibna abdillahi bilfudalaa macha allah ba tey ñoo ci daara ji àndaat ak Serigne Mor Seck mi nga xam ne macha allah euh, rek la ci Serigne Seck mi nga xam ne moo taxawal daara ji di tamit di parent d'élève ci daara ji bokk ci ñi nga xam ne tamit dañuy liggéey ci daara ji macha allah féeti fii nga xam ne ci dëkk bi mooy Bayti Seck Serigne Mor ñoo ngi leen nuyu bu baax te di la ziyaare. maa ngi leen di fay bu baax allah. sëñ Mor ginnaaw bi sëñ ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu bëgg a xam dëkk bi ñu nekk mooy fan. ci gàttal waaw fii mooy Bayti buñ ko waxee mi ngi bokk ci région Thiès. Mm-hmm. département Tivaouane. Mm-hmm. commune de Niakhène. macha allah. nekk euh, amoo ci bopp si la. Mm-hmm. waaw. allah nga xam ne mi ngi nekk ci région de Thiès. région de Thiès la nekk macha allah. yow nga nekk parent d'élève ci daara ji ñu wax bokk ci ñi nga xam ne yéen a nekk ci dëkk bi fi ngeen dëkk daara ji ana yan njariñ la jural dëkk bi ginnaaw bi mu fi taxawee ak laata mu fi taxaw tamit lan la dëkk bi ak ginnaaw bi fi sampee tamit lan ngeen yëkk ci ay njariñ Mm-hmm. njariñam ci dëkk bi moom mm-hmm. yéeme na lool macha allah ndax dëkk bi sax dëkku daara la wallaahi mm-hmm. daara it yàgg na fi lool macha allah ndax daaraa ko sanc sëriñ mii fi yeesalaat daara ji maamam moo sancoon daara ji macha allah bàyyam ñëw jàngale fi lu mat ñeent fukki at waaye nag euh, bu ñu xoolee par rapport ak euh, jamonoy mag ña ak léegi ñoom ñooy fondateurs yi. Mm-hmm. waaye nag am na jéego yu bare bare bari yoo xam ne dolliku na fi. macha allah ci daara ji. ndax li fi mokkal par année. Mm-hmm. daana am at yu baree bari ñu door fee mokkal. macha allah na am ay bari bari. waaw yu baree baree. te benn année day génn lu toll xoolee 2008 ak léegi li fi mokkal bari na trop. macha allah yaakaar naa loolu. Mm-hmm. Mohamed mi yor wàllu njàngale mi. xam naa dana la ko war a wax. macha allah ndombur boobu nag boo ko xoolee. damay jàpp ne ca la weesu woon. yaakaaruma ni mokkale wan nañ fi. ca at at yooyu yëpp. waaw ndax xam nga mag ñi niñ daa jàngalee. macha allah ndeysaan dañ daa boole jàngale. ak liggéey macha allah loolu daan na yeexal njàng. daan na yeexal njàngam ndeysaan bokkut nag daara joo xam ni jàng rek lañ lay def loo. macha allah loolu moo tax daara ji daal. kon daal dëkk bi daal gis na boppam bu boppam bu baax a baax ci daara ji ndax kër goo ci dugg. Mhm. bu ñu doon wàcce ab kaamil. Mhm. jërut ñuy woo ganeen kër ga ñoom rek mën nañ ko waa kër gi mën nañ ko te daara ji loolu bokk na ci di ko jàng te loolu daara ji moo ko fi liggéey allahu akbar macha daara ji jural na ko dëkk bi kon daal waa dëkk bi daal bokkuñu ci dëkk ñi nga xam ne dañuy dëkk ak daara di noonu ak moom hmm. ji moom dañ ko dañ koo moom macha allah ndax hmm. ni ci boroom doxale hmm. mooy ki nga xam ni mooy sun mag ji te yeesalaat ko muy sëriñ Seck da cee dugal ñépp nag wallaahi kenn ku nekk it mu di la ci laaj sa xalaat. macha allah ba kenn ku ne jàpp ni yow yaa ko moom. macha allah kenn ku nekk da ngaa jàpp ni yaa moom daara ji. Mhm. ndax doxalinam wu rafet. macha allah ak nu mu jàppee dëkk bi. ak nu mu jàppee daara ji. ak daara ji macha allah moo tax daara ji. nga xam ne daal moom yor gi nga ko yor moom yëgu ci boppam daal. képp koo xam ne am nga ci xam-xam rek mi ngi la ci laaj sa xam-xam. lu mu wax day wax ne lépp bépp xalaat bu mu andi. Mhm. day wax ne looloo ci sama xalaat waaye nag yéen am ngeen leen seen xalaat buñ paree ñu xool xalaat yi bu ci gën a rafet ñu tànn macha allah moo kon looloo tax liggéey bi ñongee nii looloo tax liggéey bi ñongee nii macha allah yow tamit ñaareel ba waajuru xale nga ci biir daal yéen waajuru xale yi est-ce que am ngeen yoon yoo xam ne moom ngeen warlu daal ji di ko joxe déedéet mhm. warlu luñ leen dara nag macha allah dëkk bi daal xam naa mhm. bu fekkee am na dara dara lu ñuy defal daara ji mhm. mooy lu jëm ci wàllu fóot daal jigéen ñi danañ fi daje di fóotal ñoo def lu am solo te loolu it yaakaar naa bu nekkan faneen fu ci dëkk bi it loola war na leen ndax fóotal fóotal dong buy jàng alxuraan macha allah tuyaaba ci nekk yàlla rek moo ko xam wallaahi tabaaraka loolu it moom dimbal la ci waa dëkk bi macha allah jërëjëf sëñ Mor macha allah mu mel ne ne yow tamit yaa nit ki nga xam ne ma yaa fi toogal sekk Seck macha allah ba wax nañu yu bare bare ci daara ji koy liggéey lépp sa loxo lay jaar rawatina ci wàllu dund gi daara ji lan lay dépassé weer wi yëpp boo ko nattable wala ci at mi lu muy dépassé ah daara ji nag dépassé am lu naqaree jàpp la lu naqaree xam la mm-hmm. ndax uh-huh. euh, dépasse quotidienne yi rek dafa bari sàkkantuma ak li nga xam ni mm-hmm. dafay gaar toujours ñu di ko dépasse mën si ko si boole waaw moo tax xam naa ne mm-hmm. jàpp naa moom mi koy def sax gëwuma ni mën na laa tutaale leen ne la nangam la tabarakallah loolu moo tax moom dana naqaree wax wallaahi ni temps la waaye xam naa ne daal bu doon ci Hmm. lu ñuy natt dañuy wax ne lu diis a diis la waaye nag yàlla na ko ci yàlla jàppale te jàppale allah wallaahi mu gën koo man amiin rabbal alamin euh, ñu gën koo mën a taxaw macha allah amiin rabbal alamin macha allah jërëjëf lan ngay wax waajur yi nga xam ne am na gone ci daara ji ñu gën a lu ñu war a taxawee waaw waajur yi de li ma leen di dénk rek mooy hmm. ñu gën a woo daara ji macha allah foofu waajur nekk hmm. moo xam ci biir dëkk bi la moo xam ci bitib dëkk bi ndax daara ji am na njariñ njariñ loo xam ni xam nga gone ci biir daara ji mu am fi mm. ñetti at mm. wala ñeenti at mokkal alxuraan ñu dugal ko ci école bi mu am certificat mm. ba BFEM loolu dafay loo xam ni dafa mën woon a am bu njëkkan fii wallaahi wallaahi loolu nag bu nu ko yàlla taw féexalee -hmm. lu man ci taxawu ko -hmm. ak jàpp ko -hmm. ak taxawu ñi fi nekk it ak lu koy jëmee kanam. Mhm. war nañ jaaxar sum tànk. macha allah jërëjëf jërëjëf suñu Mor sa kàddu yu mujj macha allah ci site bi Rafah TV ak seen. waaw émission bi di kàddu daara macha allah waaw yéen mhm. Rafah TV moom maa ngi leen di sant bu baax. jërëjëf Seck di bëgg ci teew gi ngeen teew ci dëkk bi. jërëjëf teew ci daara ji jërëjëf. ngir lu jëme kanam lislaam ji. wallaahi moom moom rek moo ko tax a jug macha allah lu jëmee kanam daara. Mhm. kon maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Seck di leen ñaanal yàlla it. seen télévision bi bokk ci télévision yi nga xam ne mooy gën a kawe ci Sénégal amiin rabbal alamin ndax xam naa lu mu gën a kawe rek l'islam di gën a yokk amiin rabbal alamin ñi ngi sant baax di alhamdulilah jërëjëf sëñ Mor Seck macha allah jërëjëf mbokk yi kon dégg ngeen li mu wax ci liggéeyu daara ji macha allah am na solo daara ji dégg ngeen liggéey bu réy bi nga xam moom la def ab dëkk bu ñu demee ba nga xam ne ni mu ko waxee kër gu dugg buñ bëggoon a jàngab kaamil aajo wu ñu dugg ci geneen kër di ko eh, di di ko fi jéggaade waa kër ga rek mën nañu koo jàng loolu wax dëgg yàlla liggéey bi nga xam ne moom la daara di liggéey ci société bi gis ngeen ko macha allah dëkk bi gis nga fi gone yi fi ñu nekk fi leen ñuy jàng alxuraan wëlbati ko mokkal ko génn waat gone yi dugalal leen ci école bi ñu wëlbati ko waat jàngaat ba amaat certificat nga xam ne bu ëllëgee fu ñu dem moom dañuy nekk doomi julli wallahi sëñ daara yi maa ngi wax seen liggéey yéen a koy xeeb waaye seen liggéey ngi yaatu bu baax a baax lii buñ ci continuer ci Sénégal fii ak juróom fi kat macha allah dana nekk dëkk boo xam ne jumhuri islami Sénégal lañ koy tuddee incha allah rabbuna lil Mustafa xayri xalqillahi manzilatun law wujjihat nahwaha kullul wara xaaru alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi nga xam ne yéen a doon seetaan seen émission bii di kaddu daara ci seen site bi Rafah TV ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit ngeen ci doon ànd ak sax tey laay wax seen mbokk seen xarit Cheikh Bachir Mbaye daaray daarul alimul xabir Touba Soura fii lañ leen andiloon tey fii ci daara ji nga xam ne moo nekk fii ci Beyti Seck ñu koy wax daaray Cheikh Mouhamadou Badiane ci njiital Serigne Seck C3S nga xam ne liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la taxawal fii dëgg yàlla gis ngeen ni ngeen gisee liggéey bi noonu macha allah mbokk yi nag di leen jox dig day daara ñëpp nag rawatina mbokk yi sëñ daara yi nga xam ne rawatina mbokk yi nga xam ne ay nit yi daara lañ lañ ku mel ne Serigne Seck C3S moom mi nga xam ne moom lañ fekk fii ñoo ngi koy woo ci émission bi nga xam ne mooy kàddu daara wax dëgg yàlla kër gi nga xam ne mooy Rafah TV liggéey ci askan wi moo ko ñor rawatina lii ci wàllu diine ndax émission bii ñu def muy kàddu daara fu ne lañ koy def ci Sénégal fu ne dañ fay dem te bu ñuy dem suñu moyen bopp la ñuy demee kon nag ñoo ngi ciy woo C3S rawatina Serigne Seck incha allah ngeen ànd bii di kàddu daara ba fépp foo xam ne daal bëgg nañ télé àgg fa rek incha allah moom rawatina nag lépp loo xam ne bëgg nañ koo jëlee ci Sénégal daal ñoo ngi ci woo incha di wax mbokk yi nga xam ne seetaan si émission bi kàddu daara ñoo ngi am mbégte contentement baax a baax liggéey bi alxuraan boo leen gisee lii wax dëgg yàlla ki ko def nekkul koo xam ne nitu tubaab la nitu daara ko def nitu daara mooy leen moom jaar na daara ba xam daara ni mu demee moo tax mu sañ lii ko def ci képp koo xam ne gagné nga ci nooxeelu duum yi mu leen jox wax dëgg ak mbokk ma la nga xam ne moom lañu wax moom tamit euh, Abdoulaye Dia moom tamit mu def am solo ci wàllu tar alxuraan kii def ko ci mbind ñoom nag ñoo ngi sàmm nga xam ne mooy ndonul Sénégal mooy jàng alxuraan mooy mbind bi kon nag ñoo leen woo yéen seen émission bi di Kaddu Rab rawatina nag Serigne Seck mi xam ne mooy borom c 3 wax dëgg yàlla liggéey bi rafet ñun suñu xol sama borom dëgëral la kattanal la may la ak bu baax a baax te yàgg la fi ba lii ngay taxaw nga taxawal ko fu bare bare ci Sénégal nga def ko fee ci Touba sax incha allah rabbana def ko ci yeneen dëkk yu wuute wuute wuute biir Sénégal macha allah mbokk yi kon lii lañ leen andi woon seen émission bi di kàddu daara ak seen site bi Rafah ngeen ñu ànd ak seen mbokk seen xarit Cheikh Bachirou Mbaye Mahamadou Maalimul Quran daara wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu àndoon ak suñu Mourtala ci caméra bi macha allah